asubillahi min seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mën a nekk ñoo lay siyaar di la ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéewal gu yaatu defaroog àdduna ak àllaaxira rawatina nag yéen ñi abonné ci seen Daaru si waaw di wax ne nag ba léegi daal mm, am nañu fi laaj wàllu seet dana seet danañ seet Daaru Salaam si faagu dana seet bu la seetalee wax la sa sarax moo xam loo man di doon moo wax la sa sarax nga génn ko te sarax mën naa ba a jafe bu ko dee da nga ne ci jafe-jafe yëpp daana si laa say sarax boo ko génne suñ borom mën laa dimbali génn la ci yooyu jafe-jafe walla sama am yokk walla xeet yooyu daal maa ngi leen siyaar bu baax di leen ñaan ngeen abonné suñu seen tey jii nag ñoo ngi waral ñëw ci loo xam day waral ak ñàkk képp ku koy def bu ko defee na nga fexe ko ndax jamono yu léegi yii kat du jamonoy ñàkk jamono ji daal jamonoy am la te lépp lu waral ak ñàkk nag doomu aadama bi war na ko moytandiku bu baax a baax ndax ñàkk baaxut ci doomu aadama ñàkk day tax ñu dëkk la foo dëkkut ñàkk day tax nga def loo war def ñàkk daal baaxut ci doomu aadama yii nag da koy waral lënn gu nekk ci néeg wala gu ci bitik dindi koom set wecc xam ne jargon yi ñoo ko fay def day waral ak ñàkk sobe nga nekk moom ci néeg di sol yére yu am sobe wala lu mel ni sab darab am sobe walla nga jël ay yére yu am sobe teg ko ci néeg day waral ak ñàkk raxasu muy tis te ñam ngay lekk di raxasu muy tis te ñam ba ngay lekk dana waral ak ñàkk ak nelaw suba booy jën julli suba ba jant bi ne dang dàngaral kooku tamit dana waral ak ñàkk di nelaw ba julli woo suba di biddanti di naaje daal dana waral ak ñàkk raxasu suñ ci baat sax moom waxal na ne war nañuy roy loolu ci ab tubaab teel a yeewu ci ndab lekk ci ndab ba pare raxasu ca dana waral ak ñàkk loolu moom nañ ko bàyyi xel moom dana waral ak ñàkk ay nit mu toog ci basan dana waral ak ñàkk ay nit tibb sawara dana waral ak ñàkk ay nit tibb sawara dina waral ak ñàkk lekk riba tamit dana waral ak ñàkk di lekk riba rek di lekkal li jàmbur dana waral ak ñàkk gu metti ñaan yàlla sa doom dana waral ak ñàkk kon ñu moytu bu baax xam ni sax nan lay ñaan yàlla doomam iñaan tamit baaxul ñu moytandiku dana waral ak ñàkk soxor loolu nit waaye am nga soxore kooku li mu am da koo àbbu li ay magam ay liggéey di ko jox xeetu soxor la dana waral ak ñàkk ak def bakkaar yu mag yi rek lu mel ni njaalo sàcc ci naan sàngara bakkaar yu mag yooyu daal dana waral ak ñàkk ak nag di laaj laaj du laaj farata koo jege rek di laaj rek te loolu bari na loolu léegi di laaj laaj yoo xam di laaj farata daal mën naa ñàkk dana waral doomu aadama bi tamit di ñàkk mooy koo xam daa xeeblu boo xam suufeel boo xam rek suñ borom da ko fekk la muy woo ca boppam a joxe asaka tamit nag ñàkk a joxe dana waral ak ñàkk gis ku yor àll bu yàgg bu ñàkk fekk boobu la ko borom sànnal ca asaka moom la ci defut kon ñi am nañuy joxe asaka muñ bàyyi seen alal yi xëy di dem te alal yoo xam ne danga daan ne yor ko te joxe asaka tamit nag man nga xëy mu tàkk man nga xëy mu yàqu man nga xëy ñu trian la lépp nga ci biir a ñàkk a joxe asaka dana waral tamit ak ñàkk ñàkk dimbule tamit dana waral ak ñàkk nit sa mbokkum julli ñëw ci yow tawal la soxlaam nga man ko mu leer na la man nga ko wala moom mi nga ñëw ci yow xam ne leer na la man nga ko wala muy sa mbokk mu la jege nga war ko dimbali te dimbaliwoo ko bu yàggee dina waral ak ñàkk kon lii mooy waral ak ñàkk yii daal yenn la ci loo xam ne dañoo wax ne dañ ko indi ci ngeen xool ku baax loolu kon ngeen moytandi ku baax a baax yii dana waral ak ñàkk te ñàkk nag baaxul ci doomu aadama yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk na nañu yàlla musal ci ñàkk yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu